man ma daan ñemeñ pour contest against APRC kenn duko ko daan ñemeñ bandul fi man ak ndem ci yalla peese ndjay yàlla na ko yara yërëm su ba ñur central ma taxaw banjul south time boobu it was life threatening mu ngi threaten sun life sun jobot yaa ngi fii di ñuy threaten gaay man bugg a ma bugg change régime rek may taxaw su ma taxawee duma ko am su beneen ñëwee it ma taxaw collusion bi ñew nak ma gis ne bii day chance as a politicien xam bir mi neka mu ma neka si collusion bi ñuy xex def nañ fi cannibal kenn digga jogut rally bi Adama baro taxawé sa Allen Street ñun ñoko def bu reuy kenn dugg ci bu reuy kenn ñun ñoko def bi ñuy Adama baro sa wacc miti ñu bes bobu le ñun ñoo liggéey tanta ñun ñoo dem uti peace marché yu yu move ñoo dog ko def ko ay flats nous donate ñu ay toogu am ñu ñu donate ay toogu ñu indi ko way ba adama ñëwee mënu ta wàcca waxtu bi jot as a candidate ñu ne ma am di sponsor candidate pour Banjul South every every five years UDP waxtu ba jot gay yi ne man duma taxaw ki noo Ibu mané mu ngi fofu mu dem indi dom bayam bi no wax Mbay mané Mbay mané ngi won APRC di rité wante ñun ci mbéda bi di fight against collusion bi ñu ne mom la ñoo taxawal ah over my dead body man du ma nangu loolu as a vast politicien nekk ay seasoned politicien du ma ko nangu noonu laa bàyyee pour dem independent bu ma ne de independent laay dem taxaw waaye bi ma demee pour taxaw independent aw ma financial bu baax GDC ñëw bu GDC ñëwee gars yi jël ma as a candidate ma taxaw pour xam nga loolu tax ma def ko am na tey GDC supporter waaye dama ko def as a politicien pour buñ flatten suma area. because suma participated on si politics bu that that time danoo flatten suma constituency mu Banjul South so suma I use my brain as a politician na suma name nekka in the books only wane woon ne rek ne participate na nit ñi xam ne benn tey am on as a candidate loolu moo waraloon suma dem GDC ma participate ko moy this last parliamentary election ba NPP ñu man ah ni andan len ak suma ideas te xamna Adama baro ndax time bi ma taxawal Adama baro bi ma taxaw UDP Adama baro musna naa taxaw man moom muy taxaw Jimara man may taxaw Banjul South bes time bobu la Adama baro daanu ma daanu ci la papaliti force election am duga assist as as MP Banjul South so adama baro sama collègue la ada adama baro sama collègue la won udp ada ñun ñep ken nekatu fa ndik ñam fa amufa, amu fa dëgg amu fa nguri adama baro udp la wa ña baax dem npp nyabah vas ham xam dëgg yërëm rew dem npp ci la boka nag ci la boka non noonu la ko ni ñu mëna parce que ñu ngi NPP ñun ñoo taawal NPP amaguñ si dara amaguñ si dara bugga réew moo tax ñu taxawal NPP bugga réew mi gis ni moo ñun legacy lañ fi bugg man awma dara si politique ndax yi ma taxaw yëpp ak sofa gi ma sofa struggle gi ma struggle yep, awma ci dara waaye bugga réew mee tax te dina fi bàyyi legacy inshallah allah rabi cuma fi yalla bàyyi ma bayi na fi bàyyi legacy ndax gis na parti bo xamne mën na dem ak ñoom te la ma bugga jël suma xalaat ñun ñëp dañu jëlante xalaat té do leen di liggéey rew mi té ñu ko liggéey comme exemple li ma la wax gis ba togué di daw Covid 19 Covid 19 ñun ñoo doon dem suul nit ñi ku nekk a ngi si doon wax moytul mag nga di nga dé di nga def ni ma leen man rew mi suma dé pour rew mi sa legacy la pour man bàyyi fi legacy so man ban façon nit bobu la man si dëgg rek laay dox ku ma si bañ nag nga bañ ma ci faalewuma la ndax man maa cuus politique te ku cuus politique ñu ne ku boot bu kii xaj boobu la politique soo si duggee moom ñetti yëf dina la toppa dinañ la saaga boot bu set lu ne dee jegeñ na la ndax mun neen laa rey all the time yooyu yëpp ci politique la bokk ku bañ xaste ku bañ saaga ndey ku ragal dee bul sol mbubi politique man nag ragaluma benn si ragal ragaluma ci ben suma de de dëggaa ray ma de ci ga suma rew dina ma jaral de taxaw na beso na musuma am musuma am la ma laaj way du tax ma bayyi su ne nen gis na ni taxaw be daw man dawuma te duma musa daw bakken rek bakken bu fi newut rek moma bayilo lo politique inshallah rabbi rabi mom lo am la ndax dafa am ñu fa nekkoon am ay gars yoo xam ne dañ leen bëggoon pour dugal foofu ñun ñoo doon xosul bu Adama baro di dem boobu tutaagut pati Adama Barrow ñu gis ni moo demee mu ñeex ñu ñu fomm ki ko fommoon mooy aji soirée jabari démboo baay foos kookoo fomm mbir yi ba ko fommee mu invite ñu bi ñëwee nu nekk si di struggle struggle su Adama baro di dem si dex yi ñu toppi ko ñun ay school si di finance si ñu noo ay video clubs si bi dex gi di ko toppa idem, dem because hamne ne Adama baro mom intentionam ang ak ni mo yóbboo dëkk bi du jubo benen boor bi dafa am pour dem dina ami parcelle te ñun tawa lo taxawaloo Wow, so legi nu nekkasi nekkasi nekkasi nekkasi di dem yalla di ñu indil mbolo ndax nit ñi suñu gisee dëgg dañoo bokkasi ku bëgg Gambia gis dëgg da nga bokkasi ñu ñuy dem di dem di dem dem nu ñu forcer Adama baro pour mu def fati tay muy NPP na nekkon demba sa nguur ga lekka barka demba nguuri barka demba gi di PPP ñew leka APRC nekkon ay ñi ay nekkon ay ministre ni nekkon ay managing director ni nekkon ay ambassadeur ñëw ne dinañ nangu lii suñ loxo non over our dead body politicien doo ragal ñu ne leen loolu du am liggéey neen Banjul ba Banjul usine yi ndax keroog bi Adama Barrow di joge mit di people too daan feesal aj 22 bi nga waa aj 22 buñ ko daan ooyee mooy aj ba Banjul aj feesal ko bem fees te ñun fa feesal yëpp waa Banjul la kenn jógewul fenn ñëw ñëpp waa Banjul fa di first time ay président am loolu ñun ñoo ko liggéey liggéey ko bepare pare ñi doon wàcc xan koto yoo xam ne daan féel moo tax ñu génn si nguur gi ne dinañ ñu toppa si non non non non non non su ma wax a yow nii sax su ma xool daf dee tànga si loolu bi ma wax nii liggéey ko de ba léegi koto yooyu ne dañoo ñëw lekka nguur yi APRC lekka nguur yi PPP ñëw lekkaat suñu bos déedéet man koto yoyo ma tardel man pa boy ndax man pa boy fresa bokko na si ñu leen duggal ci nguur yoyu yëpp dama daan xex di politique ñuy duga kenn duma defale way man setuma alel ci politique ci ma don set alel tay duma fi nekk tay ndax musul ma fal taxaw naa di wees suma ressource si tuuti ma yàlla am di taw di taxaw ba léegi 22 years maa ngi taxaw dëkk ba ngi tànga ñepp xam nañ ko so ne so ñëwee nit sax diko wax yefi politique sax de de de de de de de ma nekk ci ba tay xam nga ne ngor ma ci taaj ngor du bugge ngor tay nag lu ma si fekka nag muy suma wóor sax te soo nekkee si dëgg rek yalla dina la dimbalé dem na be nekk tay secte general of NPP bir bañul alhamdullilah alhamdullilah alhamdullilah ñetti yoon suma deggu ak ñeme li maa def moo ma ko may ci kattani yàlla waaye du kenn du kenn te xëj na su ma continuer déggu gi ma déggu yàlla dina ma mayal leneen lu ëppal lii incha allah ndax yàllaay maye te daf laa toppa si dëgga ak bugg a sa réew. am na développement yu bari xam nga nag muñ mi kuy kuy yor du saxat am neen développement su bari OIC baa ngi nii yooni kombo yi rek. té loolu dafa laal si ba si capital bi ma jàpp ma junjalee ñu yooyu rek ak yeneen ak yeneen ak yeneen duñ leen wax li ñu am nag parce que ñun wax du suñu yëf def ñu def ñu gis mooy suñu yëf ba ñoo liggéey taliba ba ñoo jeexal fañ ko doon lañ ko liggéey kon ak yeneen ak yeneen suñ waxee rek def so gisee ñu wax rek ñor la soo nag lu bare ngay ñëw incha allah rabi si kattani lu bëree ngay ñëw pour réew mi te dinañ ñëpp dinañ si gis seen boppam. dafa daw yaram pour bugg a place bugg a nguur tax ngay jël ñeneen ñu bokkul si réew mi di leen jox sun national document si ëllëg yaa ngi sonal suñ doom yi xëj na duñ ko fekkee di nga taxi fori na ñëw ruur réew mi ndax ñoom i neen suñ si duggee seen waay rek la fal seen waay duñ juddute réew mi. dëkkuñ si réew mi bokkuñ si réew mi ñi ko war a am ñooy waa réew mi nga jël ndig bu nga rek bu nga place rek nga ne yaa ngi koo def yaa ngay yaxi ëllëg du tey ëllëg nga yaxi ëllëg suñ doom yi danoo toog gan di leen rul te yàlla bu yàlla loolu am yàlla bu yooyu am wallahi su loolu amee man du ma a si nda ndax xeexuma woon ni man xeexuma ko labaj bu rëy sax te ñu ngi koo toppaat ci kanamee di nga gën di nga gën a gis ñasa booka ak labat gi fan la ne ndax mu si suma Facebook page te maa ngi si ko am waaw pour nit ñi awuyaa awuyaa labat bi ñëw ak di leen woon ëllëg lan la lii di jur moo tax ma binda ko parce que Facebook dafa dem fu ne ku munut a jot suma baat tey mu nga koo jot Facebook ku munut a xam li xew mun naa la ko xamal Facebook ci mooy li ma doon njëkk a wax rek ID card ña fa nekk ñoo nekk si booda si benn tey benn département bi bila benn institution bi la bu leen xaalis jaral ñu jaay seen ngoor jaay seen réew ngir yàlla ba ñoo liggéey danoo dañ doon jël liggéey gi daan waat ne danoo saaf dëkk bi ak ngor ak dëgga tey bu leen xaalis jaral ñu jaay suñ ngoor ñoom seen boppale noo lora seen njaboot électrique mooy benn wax bi ma doon wax rek ndax si ñaari mbir la feeñ feeñ na si bàyyi nit ñi dugga si réew mi ndik ay 10 000 ak 5 000 tey mu feeñati si ID card ak liñ leen jox xaw ma ñaata leen leen jox waaye liñ leen jox ndax ID card duñ ko liggéeyee noonu te ne xal amul waaye incha allah li si nekk yëpp njuuj njaaj si kanam dina feeñ immigration ay liggéey ID card te ñoo koy def. feeñ na mayoress bi joxe na ak Fatou Faye neen am neen audio si génn na si vidéo. xana ko ko dégg ne déggu dégguma ko parce que nit ñi ñan mun bañ dañu gis ne li ñu ne wër baa ñu ne déedéet janta bi la way lolu mom ñep dégg ko pandéri mbay toujours mu ngi si koom fi nekk ni Freedom Radio in America Fatou Faye ci bopam wax na ne 20000 la ko res jox am nañ ku doon sentam from London di wa diaspora bi from London li dajale pour ligay ID card audio show yeb génn na xanaa ko bu ta dega su ne mu ngi ni na nga sañ sa noppa bi ak ak banta doko ko di ndax yaangi faral fofu ku faral fofu du ko dee dégga waaye ku bëgg a mi di ko dega ndax réew mi dafa jara ar fim neka dan wara ar aar réew mi réew mi dañ fi wara gene njuj njuuj njaaj passé nañ lolu ndax ñepa ewu fim neka ndax media ba ngay dox toujours way ñun ñepa ñaka way way waay waaye neen amee suñu aleel si ngor loolu la buga sa own interest dina tax nga jaay sa rew buga falu buga falu waru a tax nga jaay sa ngor ay fal wallahi so fi doon liggéey liggéey bu baax nit ñi gis ko dinañ la fal waaw dinañ la fal yalla dafa jàppale ku farlu. ID card bi so gisee mako mu jaral la sponsor pour falu rek ndax ñi ngaa ay ID pat sax pour ñu votal la la pour ñu votal la nga wa fa nga togon rayatin waaye yalla burbi. bi rabu samawaati borom bot yu reyi wallahi du ko nangu inshallah allah rabi du ko nangu ndax ñu ngi doxé si dëgga di démé si dëgga bu ga sun rew bu ga wéci rew mi so ki def lolu ñi def lolu feeñ leen nu ngi gëna gas mbiri té inshallah nu ko dingati yeb dina leer. nga jot neen wax yi ba pare investigation si yaa ngi on dafa fekk doo mun a wax yëpp fii parce que media doo si wax soo si waxee rek ñu yaxasa sa investigation doo joxe information incha allah. waaw ma ne lik audios leen lik audios si seen page leen jógee ñu lik it was their own page it was their ñii ñooy generation of tomorrow xale yi ñii. suma liggéey yef ci ñi la dem ndax man amatuma ci dara mak la maa ci suma 60 ci fim nek man duma ma la animo so xale yi ñooy nekk generation tomorrow legacy bobu la fi bugg bayyi pour ñi ñëri ñew ëllëg ndax tédé ma tëddee ba mel bàmmeel noppale ko wa xam nga ni ID card ci dafa leer da nga gis ID card ci si bopam gis receipt ci dafa leer mom ID card ci was shown recettes yaa ngi fa ba pare audio baa fa boobu moom kenn amul lu fi diggante te moo su luy jeexee dina la boole nga aat ko si sa clip si wax di ID card and di audio ndax maa ngi ko ame pour won nit ñi ne li ma wax lu déggu la receipts of immigration baa fa ña la amee ID card compagnie bi naka la tudd seen receipts ya fa nekk ID card si si boppam ñu ngi ko lal teg ba pare ñu ne desaat na moo moo ñu ñëwaat amaat beneen audio ñuy wax naa ne diaspora bi xaalis yi ñoo indi di ko joxe na di transparent ñuy wax ne kii yaa lii la joxe pour mu ñu noo sponsoré ID card si yooyu yëpp a lig audio yooyu yëpp a lig si seen page si seen page la la yooyu jógee nit ñi jot si tasaar mu tasaaroo seen groupe page bi mooy timru gi groupe page fa la jógee groupe timru gi benn benn la fi mooy tim meewres bi benn lafi fi foofu la jógee foofu la ID card yaa parena nii na, naa uh, I forgot yeneen na yeneen na yeneen na. tax mana lah, I will give you the audio again pour nga mun koo relate boole ko si programme bi ndax mu set ndax bëgguma fee wax dara loo xam fen la man si dëgg rek laay politique yi nga ma bañee te moo si ma tollu ba fii waaw dal waaw lima ma leen doon wax gisoo halai. doon wax yi dañ leen war a solal mas ndax feebar bi bàyyiwut kenn feebar bi luy dund rek dina la daaneel te xale yi suñ ko amee mun nañoo faju wér waaye dañ koo joxe ñuñ ko jox mag yi suma mas gi suma ko amee duma man dam man dama si careful trop because tuxkati cigarette la te man daf maa affect ndax tux smoker te man heavy smoker a smoker am covid 19 most likely don't survive moom la laa ne ID card yoyu nak dinañ ko lijanti fum neka because bi non about it why am na benn buma bu ma stop ne ma nu ngey def more investigation bu ma di lik bu ma di jox gay clues so moo lima nag la ci jotta wax rek lolou rek la la si muna wax yeneen ni dam duma la ko wax duma la ko wax ndax ñun ci ko am because they will never go free dina leer nañ man yow tay suma la utali id card nga am etine pérène be wara taxaw ba pare ben document pérène war na faa feeñ fanaa loolu mooy criteria si ben moy mooy moy criteria si pour def ko way yow nga ñew rek tok sa rek id card ñew fekkasi la loolu yomana lolou dafa yomba man suma bop bopp amee ID card man bi pa Boy sa di taw te gars yi xam ma Paa Boy Fraser xam dama ay taw election dama yóbbu suma document ni papa dama ko yóbbu mu a am ID card suma ko yóbbu wuton duma am ID card te de nomi way dan bugg a document bu set ma mun ko am moo ma yóbbu suma ID card ti papa dee na de way ma ngi denc document sam mom la use pour mu am suma ID card c'est ak simplex. Simplex mooy compagnie ID card bi ñoom ñoo immigration ñooy liggéey together so investigation baa ngi on du si mën a dem fooda because dafa am ñun war a nuba ba def liñ pare ba pare ñooñu dañoo report dañ doon report bills because gaa ngi si investigation yi still dañoo report bills because ñooñu leen si tudda ñoom leen dégga ñooy report bail soo xam nga doo mun a acquis gum te loo bi dogalagut waa ñun am neen clause am neen clause xam neen ñu ko def soo loo bi dina jël matuwaayam dina feeñ te dinañ si waxaat si programme incha allah kooku mooy faatu fay si one of them te ay think ne am naa audio yi yëpp Panderi sax seen na audio show yi on freedom waaw man duma ma dee wax dafa lu leer la balaa ma dee wax damaa xaar ba am évidence soog wax parce que man kenn du ma toppa bugguma kenn daaneel ma man kenn du ma daaneel bàyyi évidence laay waxee te amee politicien et vaste politicien ragaluma suma kaddu naa óor ne duma tuumal kenn du ma wax na leer falaa dee sukkandekoo am na lu bari yoo xam ne maa ngi ko xam waaye leeraguma moo tax waxaguma ko waaye bu suma leeree ba ma jot si évidence yi dinaa leen oyaat ngeen ñëw ci man ma wax lu bàyyi seen xel ne dan waatoon man falak laa dee waxee waat yàlla nga dee waxal yala nga de waxal dan waton te buñ waté dan né danoo saaf réew mi si dëgga ak ci jup kon nak nañ continuer lan waton buñ yaha domi askari Gambia Gambia should be ruled by Gambians not foreigners buñ len allow ñu am documents be mun noo ñëw rule man ko ñaan ngir yalla Manganya ngi ñaan yoru ngir yalla askan bi ko xamne involve na si di joxe illegal ID card si ma ngi la ñaan ngir yalla ak rew mi nga balal ñu ya ha rew mi elek dan bu ga sun domi mom sen bopa dan bu ga sun bomi domi mom sen rew bu guma elek fori na ñew di len rule lol du yoon lol du yoon gis nga xalé yi toga man ni max len sol alhamdullilah ni nga jangale xalel pour elek xam nga ni xale yi under 12 international yi li ma dégg under 12 warut a sol masque ñii they are not even three years old bon gaa ngay sol masque da nga leen koo jàngal pour ëllëg alhamdulilah lii rek dina wane exemple ñiy seetaan gis xale yi sol masque su xale solee masque ku xamul dara xam ma nag mag lu mu war a def. wa Banjul ma ngalen ga wa Banjul wa Gambia en general manelen satal yin si tek nañ ko toppa ndax ngi dem fa satal yin si tek yin fi tek nañ ko topa moy nuy rahasu di sol masque di tok si keur di def social distancing wallahi sin si sin ko saho du jël six weeks sax febar gi dem yonam ñaaral bi nen respect loi su ne curfew ten o'clock waaye lu waay doxu deux bi ba ten si guddi mënatuloo koo dox ten ba five yomba na loolu sa healthiness na ngay teel a nelaw eewu parce que war nga am six hours sleep si wérgu yaram la bokka waaw man mi min toog mbedda sax baax na pour man ndek mu nga ceeñ parce que man toog mbedda la xam nga man man man du may nelaw guddi waaye gis nga ko fu mu nekk suma état laa dee toog suma corridor nekka la foofu laa dee nekk si social media foofu laa dee nekk si social media ba njël ma tëddi ba pare nag daf ma defloo sax maay gën a xam lu bari nda maa ngi si social media bi maa ngi am time pour social media am na documentaires yu bari yu ma binda lockdown bi dama si kontaan de curfew bi dama si kontaan trop parce que eggaloo na ma fu bari foo xam ne dama ko doon tayal a def alhamdulilah waaw. waa ñu nekk si biti ñoom ma wax leen ne ngeen ni ngeen déglu nii li ma wax mooy dëgg bi lii mooy version yi dëgg bi buñ leen nax onge naa par parloo ba jaari foo xam ne du dëgg di sponsor ay ID card yoo xam ne ñooñu duñ waa réew mi wala xale yoo xam ne egguñ si at muumule du yoon yéen fi ngeen dëkka da ngeen toppa sarta yéen diaspora bi da ngeen toppa sarta fi ngeen dëkka bi ñu waxee lockdown complete lockdown la bi ñu waxee ne eh, essential workers yi rek ay génn te da wone wane sa ID card da ngeen ko toppa what about seen réew toppi ko réew yi jaamu te dafa leen ko seen réew yéen yéen a dasa parce que yéen ngeen nangu loolu a ngeen nangu réew jàmbur essential workers yi rek ay giina dem liggéey during curfew hours ba pare fii nanguwu leen ñeneen def ko waay waay waay waay yéen a ngi si civilized country and I think ne civilized ngeen nowadays so please please maa ngi na a waat ngeen a yónnee message bi si seen nit ñi wol leen ñeen tam ni ngeen a toppa foofu ne yéen a ngee toppa salta ne toppee ko domit seen salta réew da feebar bi dem loolu laa amoon pour wax non Sahel network network bii wallaahi mooy wone mooy network di dëgga mooy network buy wone dëgga gi mooy network buy struggle pour wone Gambia lan la kii mooy doomi réew kii mooy wane waa Banjul si lu ne xalaat dugg nag loo xam ne xibaar la luy won yow mi dem kanam loo xam ne di sasta la luy aar réew mi Sahel Network rek a ko génne man day Sahel Network rek a day ñëw interview ma te bii du suma njëlbeelu interview always ñoo dee ñëw interview ma pour nit ñi dégg ma xam liy xew si réew mi kon jërëjëf Sahel Network